asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi jotaat nañ ndigal ci sëriñ Sidi Mbacke xalifatu Cheikh Abdoul Ahad ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi lool doole ak wéram ñëw ci rakkam di xaritam di sëriñ Amsatu Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Amsatu nag di yëkkatiwaat ay kàddu di sant mboolem njabootu sëriñ Touba gépp ginnaaw bu mu santee sëriñ Sidi ci liggéey bii nga xamante ne bii bëgg ko jëriñ rek tax mu jox ko ko nee na mi ngi sant mboolem buntu këri sëriñ Touba yëpp ci li weesuwaat di leen tàllalaat loxo ci li ñu dëgmal di leen xamal jotaat na ndigal ci Serigne Sidi mu Cheikh Abdoul ngir bàccaat tool yi Daaru Salaam bokki barga le 11 décembre incha allahu rabbi sëriñ bi nag nee na mi ngi koy yëgal sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Cheikhouna Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ak sëriñ Abdoul Khoudous Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad di ko yëgal itam sëriñ Fadal ak sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir sëriñ Abdoul Akram Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem waa soowu jant gépp di ko yëgal sëriñ Maam Cheikh Mbacke moom sëriñ Falilou sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifatu sëriñ Modou Roqaya sëriñ alhaji Mouhamadou Lamine Baara sëriñ Abdoul Aziz Mbacke moom sëriñ Modou Awa Balla ak sëriñ Modou Kara Mbacke moom sëriñ Moustapha Absa ak sëriñ Mamor Mbacke transitaire nee na it ngi ko yëgal sëriñ Abdourahmane Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina sëriñ Mam Mballa Mbacke moom sëriñ Abdou Mbar sëriñ Abdou Mbacke moom sëriñ Mbay Mbacke Jaaxal sëriñ Abdoulahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Abdoulahad Mbacke moom sëriñ Abdoul Fatah sëriñ Abdoulahad Mbacke jaaxal sëriñ alhaaji Mbacke moom sëriñ Sahid sëriñ Mbacke Penda xalifatu Serigne Modou Mbacke moom Serigne Mbacke Saloum di ko yëgalit Serigne Falilou Fall moom Serigne Amdi Yacine Serigne Mourtala Fall moom Serigne Abdou Sakor Fall Serigne Fallou Fall moom Serigne Aliou Fall Mbawor Serigne Cheikh Khadim Fall Serigne Moustapha Fall moom Serigne Abdou Aziz Fall Serigne Abdou Lahat Fall moom Serigne Cheikh Khady Gueye Serigne Aminta Fall moom Serigne Moustapha Fall Fatikan Serigne Moustapha Fall xalifatu Serigne Cheikh Khady sëriñ Abdou Lahad Jaxate xalifatu sëriñ Cheikh Jaxate sëriñ Abdou Lahad Ka moom sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad sëriñ Xaadim Fall moom sëriñ Bada Fall sëriñ Abdou Lahad Fall moom sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar di ko yëgalit sëriñ Fallilou Bousso moom sëriñ Ousmane Bousso sëriñ Moudou Mamoun Sarr Jasaaka sëriñ Khadim Diouf Lambaye sëriñ Mouhamadou Gueye moom sëriñ Basirou Gueye sëriñ Sultan Diaw di ko yëgal sëriñ Basirou Si sëriñ Amar Diagne ca Njaañ sëriñ Cheikhouna Gueye Badar sëriñ Talla Diop Maka Sarr sëriñ Mokhtar Diouf Euh, sëriñ Abdoulahad sëriñ Ismaïla Diouf Nourullah sëriñ Modou Touré Seew seriñ Fallou gay Gal sëriñ Modou Mbacke si moom sëriñ Moustapha si di ko yëgalit euh, mbooleem ñi nga xamante ne bii moo di njabootu sëriñ Tuubaa gu jigéen gi tàmbalee ci soxna Maymunatu Mbacke moom Cheikh Abdoulahad soxna Waala Mbacke moom sëriñ Saalihu soxna Baali Mbacke Muntaxa soxna maam Say Mbacke moom Cheikh Mahamadul Fadal soxna maam Awa Mbacke bintu Cheikh Mahamadul Fadal soxna moomi Kebe moom alaaj Njugo Kebe ak soxna Ngoy Fall Baye Fallu Cheikh Abdoul Ahad di ko yëgalit daayira dongoy tërbiye yi kër sëñ Abdoul Ahad daayira doomi dongo yi daayira turandooy sëriñ Abdoul Ahad daayira sëti sëriñ Abdoul Ahad yi daayira sëriñ Abdoul Ahad Italie ci njiitul sëriñ Abdoulaye Fall ak sëriñ Abdoulaye Dieng ak sëriñ Abdoulaye Lahad Gajaga serin Mor Mbay nekk ca Janwa daayira Xudaamul Xadim ci njiitul sëriñ Basiru Coro di ko yëgalit sëriñ Cheikh euh, Touré ak mboolem njabootu sëriñ Saalihu Touré gi bàyyiwul kenn di ko yëgalit Alhaaji Mbay Touré transporteur Serigne Abdoulahat Gay Caajaay Serigne Abdoulahi Silla Ecotra Serigne Lamine Touré nee na mi ngi fàttali ku baax di ñaanal Serigne Cheikh Fall Touré sun borom dolli ko ngërëmul yàlla Serigne Khadim Gueye transporteur Serigne Pape Mbay eh, Tata ak Serigne Idika nee na ba tey mi ngi ko yëgal Serigne Idrissa Ñang Kolobaan di ko yëgalit Serigne Abdoulahat Sarr moom Serigne Sang Sarr Serigne Abdoulahat Diop Touba Belel Serigne Amsatou Diakhaté chef de village Touba Belel Serigne Cheikh Diop xalifa Serigne Ibrahima Diop Almasariyu Serigne Cheikh Diop ibnu Serigne Modou Massamba Diop Serigne Sohaybou Diop Pekes Serigne Galas Diop xalifa Serigne Mbacké Assou Serigne Abdoulahad Diop xalifa Serigne Thierno Diop di ko yëgalit eh, Serigne Askia Touré ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp Serigne Amsatou nee na départ bi la 11 lay doon incha allahu rabbi liggéey baa ngay amee ca Daaru Salaam bokki barga nee na mi ngi ciy séntu ñëpp di ko yëgalit alaaji seriñ Mbuub CCBM ak alaaji Moussa Mbuub nee na mi ngi ciy séntu ñëpp nag di ñaan képp ku teew ci liggéey booba yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj aajo ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.